Assalamualaikum guys, Insya Allah leen bu baax di leen wax ngeen dal jàmm sur le sport 221 Spartak Moscou xam ngeen ne ñoo abale Keita jàpp leen club am bi nga xam ne sax mooy Espanyol de Barcelone doon doon nañ sa bëccëg bi soxal Liga dos bi mooy que deuxième division espagnole ci noonu ñoo daan 3 buts à 2 seen toogaay baax na ndax ñoom ñooy deuxième sargo ci première rawe la ñaari poñ Sabali merci bi kon moom kat lakkati na ci arrière jàpp leen contre kon moom mi nga xam ne mooy passionné bu général su foot bi bi mooy ñaareelu biom ci Liga bi kon kat ñi ngi averti di artuwaa Rwanda kat xam na suñu daw bi bi nga ñëw wane fa lu mucc ayib bu fekkee Divock Origi moom léegi leer na abale nañ ko ca Nottingham Forest ek nag salaire bi nga xam ne nag voilà moom lay fayeku léegi Nottingham Forest moo koy fay à cent pour cent comme ni nga ko fësalee ci xibaar yi kay wër ka xaatimaan na benn contrat bu bees ak waa Man City contrat boobee nag dafay dem ba vingt 2026 bu lépp yembee mu jàll visite médicale am ce lundi moom benn mooy Sergio Ramos dana delluwaat ci Séville club bi am daan na fa doxal bu ñu dellu ci ginnaaw mën na fukkeet ak juróom ñett kon mu dara delluwaat ci këram bu min Jadon Sancho ki nga xam ne mooy Erik ten Hag moom sélectionné ko moo ko boole ko ci ñi nga xam ne ñoo war a doxal ci championnat bi li ko waral mooy que seen entraînement kat lam fa woone moccul ayib dara kon niveau bu muy affiché kon bu bëggee bokkaat ci groupe am na gën a dafay jéego ci noonee clubam bi deful benn jéego ñu ngi enchaîné ay lajj ci prime League bi Arsenal moom mujj jaar seen kaw voilà 3 eh. buts à 1 bu fekkee nag ki nga ne eh, André Onana bi nga xam ne dugg amoon nañ lool ci moom yaakaar mu ñëw uutu David De Gea ñu tàmbalee mucc lay dara ñeenti match mu encaissé na ci voilà juróom-ñetti but ki nga xam ne mooy Jurgen ak clubam benn mooy Liverpool ña ngay wane seen yoon 3 match ñu ci 3 ndam. Premier League bi ñooy troisième City raw leen ñaari poñ jàppale nag ginnaaw gi jogante bi kii nga xam ne mooy Jurgen Klopp di biik ci kàddu mu ne Mohamed Salah demul fenn muy Arabie Saoudite ak fu manti doon kon dafay deseni foofu ci Liverpool. et que sax euh, ki nga xam ne mooy Szoboszlai bi nga xam ne sax jot naa dugal seen jamono mu ngi koy dëggal mu ne nag Mo Salah dafa bëgg a desandi foofee et que voilà loolee la wax ndax ñoom ñaar kat dañuy amal ay waxtaan lu ci bëri. mauvaise nouvelle pour les Gunners jàpp leen ki nga xam ne moom mooy Thomas Partey dafa amee gaañu gaañu kon buñ moyul mën a toog 6 à 8 semaine laata mu ñëwaat ci jawante yi. Juan Mata dina wéyale ay jawanteem foofee ca Japon ginnaaw gi ba mu quitté Galatasaray kon résumé na naa see club bu. Inesta benn mooy Vitesse Kobe Barça ma ngi wéyale ñoram ñetti ndam yu teglu la am ca Liga ba ñeenteelu bëccëg bi nag ñooy mujjee daan Osasuna ñaari bal ci ben Jules mujjee lakk caax ya et que ñoom seen toogaay baax na ndax ñooy troisième Real rawe leen ñaari poñ ca classement ba et que rappel ki ngeen mooy Cancelo jowante na bi jeex de même que seen beneen recrue benn mooy Joao Félix dugg na la quatre-vingtième minute. Moussa Ndiaye waneeti boppam moom kat non seulement dafa joxe ñu dugal waaye aussi mooy dugal la bi bi may clubam benn mooy Anderlecht ndam face à Genk bi mooy ñaareelu biwoom en championnat. mi ngi def ndorteel bu baax a baax club bi mooy Real Sociedad kon la japonais bi mooy Takefusa Kibo ñeenti match ñeenti yoon ñu tabb ko homme du match dugal na 3 bi joxe benn yoon ñu dugal. li Junior Samb bi xam ne transfert am kat doon nañ ko séntu foofu ci Arabie Saoudite voilà mujjulantu waaye nag dafay delluwaat ci club bi mooy Wydad Athletic Club kon ci ñaareelu bëccëg bu Botola Pro bi kat moom lakk na caax ya loolee nag mooy biom bu njëkk en championnat marocain. ki mercato bi en Angleterre joueurs yi nga xam ne ñoo gën a cher nag voilà fësal nañ ko mooy Moïse Caicedo ca Chelsea cent quinze millions d'euros Declan Rice cent dix millions d'euros Harry Kane Tottenham cent millions d'euros mu dem ca Bayern. Chelsea bi nga xam ne génne na koppar yu takku def ko ci marché de transferts yi sur les football yi waaye nag seen bilan mucc na yëpp dara si fukki ak juróom benn machine yi mujjee jiwante en Premier League am na ñaari victoire. juróomi nul ak enregistré nañ juróom-ñeenti défaite. Arsenal mu ngi ci yoonu dakkal contrat bi dox ci mu ak Ivoirien bi nga xam mooy Nicolas Pepe. kon gars ñuy jàmbale foofee xibaar yi di leen jàmm di ko sàkku ci yéen ak di leen souhaité màggal ak di kontaan si yéen bu baax a baax ci daaxilu bi.